salaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi di nuyu di waa àddina di kilifa diina yi kilifa ak aada yi di sama sang sama njiit sama wasila muy sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall di sama famille du ñuy kull di nuyu sama dëkkandoo yeeg ñëpp dañ cee doon koo doon wala da dañ cee am i waaw loolu noonu de. yàlla suñu borom dogal rek te doonu la te dama koo doon si sama maam ñu koy wax Adja Ndate Diagne yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm te xaaree ko àjjana yàlla na suuf sedd si koom si moom laa ko doonoo. Mm-hmm. waaw damay jëflanteeg ñoom di liggéey ak ñoom di dégganteeg ñoom si lu bari mooy li la wax rek doonu la rek. Mm-hmm. dama koo doonu dabu ma nag de. Mm-hmm. xëy ma xëy rek dugg si te doonoo wóor. Mm-hmm. kon yow si gàttal mënti nekk ak foo waaw fépp fu ma mënti dem at fépp fu ma mënti jëm ñi nga xam man. Mm-hmm. ndax dama judd. Mm-hmm. fekk samay maam. nekk ñoom. d'accord mënuma koo daw nag. mi ngi xam man fépp fu ma dem ñi nga man fu may dugg ñi nga man. ni may jokkeex yow nii noonu la ñuy jokkeex man te yow doo leen gis man ma leen di gis ñuy wax ma leen di dégg. ba fi ma toog nii. këru cosaan gi nga nekk. yaa ngi si biir kër gi toog si ëtt bi. kër gi ma ne foofu lañ fi lañu nekk nii. waaw fii mooy Njaañeen. Hmm. fii mooy kër Adja Ndata Diagne mu yàq yaay Baba Diagne mu record borom beñ gànna boroom nag a neex. d'accord gëm naa ne du ñu ci sori waaye itam ci jinne yeeg rab yooyu la ñëw ba tey maanaam da ngay jëflante ñoom parfois ñu dee la wax la luy xew. dëgg la. Hmm. yàgg nañ maa dee wax ma luy xew. Hmm. yàgg naa wax mais nekkul lépp laa daan wax. bari na li ma fi wax ay ginnaaw yàggul. te am na ñu bari teg nañ ci seen bët àddina ñëpp. waaw comme yenn xew-xew yi xew lépp fekk na wax naa ko avant. Mm. accident yeeg jafe-jafe yeeg kilifa yi wàcc liggéey ak am tur yeeg lépp. Mm. lépp wax naa ko avant. Mm. li jot a xew nii lépp waxoon naa ko. avant ñu ñëw ci faj lu tax daawoo feeñ wala sëriñ si dañoo bëri ku nekk naan mën a mën a tudd ko. waaw xam nga bu pënd mi mu bëree at riirandoo mi faa nga e-, écarté wu rek reculer. ndax coow lee bari rek mën a mën a yéeg bari na trop waaye wax jee fi nekk rek. ñenn ñi lool noonu lu ñu teg seen kaw la rek mais nekkul si ñoom. waaw lu ñu teg seen kaw la rek. li ñu naan promotion. Mm. noo koy déggee si marché yeeg lépp. Mm. waaw ñoom daanaka foofu lañ dugg. ay mbiru promotion ñoom lañ ko jàppee amaana sax ngeen mbiri àddina. Mm-hmm. mais dara nekkul si ñoom waxin la rek. daa laaj déggin. baax loolu moo nekkoon présentation bu gàtt bu ñuy waxtaanee Ibrahima Diouf du ñàkk nag ñu dugg ci paj mi paj nag dañu gis nga teg ñaari ñaari layu benn bi nga def ko ci ay suuf ak ren suñu jur ren yu mokkal benn ma gis ci ay béjjën ki petaaw ak i xaalis ñaari euh, lan mooy seen lan nga lan lan ngay liggéey ak ñoom ñu njëkkee ci euh, layu waaw xam nga layu beeg petaaw yi boo ko xoolee xam nga ni pour seet la. Mm-hmm. waaw moom laay yëngu. damay seet. waaw damay seet damay seet si petaaw. Mm-hmm. damay seet si ndox. Mm-hmm. damay seet si suuf waaye bi si nekk rek ak bi sa rawan jublu. moom ngay jël bi si nekk ak biñ lay jox. dañ lay wan nag de. te loo loo loo seetal doomu aadama bi boo ko waxee mu gis ko. bu neexee yàlla suñu boroom Mm. waaw bu ma jokkee ak doomu aadama lépp lu ma la simante wax bu soobee yàlla suñu borom dama ne ne yàgg yàgg di nga si teg sa bët. kun toog fii ak ki nekk bitim réew surtout ñi ñoom. Ah, dinaa jokkoo ñoom. Mm. bare na ñu nekk bitim réew di jokkoo man ma leen di seetal. Mm. di leen liggéeyal. si lu bari ñuy jokkoo loolu noonu dama si yëngu. d'accord ci seet bi loo gis da koy wax. soobee yàlla suñu borom waaye nekkul lépp nag la ñuy wax. ndax nekkul lépp la ñuy wax. du lépp la ñuy wax àdduna bu ñu doon wax lépp mu toj. li ñu war a wax wax nu may liggéey ak morom borom. Mm-hmm. ah wax ju neex sarax la. Mm-hmm. nit ku nekk yaa xam nooy jokkoox nit nit mën na ñëw ak njàqareem. Mm-hmm. ak tiitaangeem. nga jokkoox moom ba dalal ko. andiwaat ko jëflanteek moom. te boo jëflanteek moom incha allahu rabbi li mu bëgg lépp di ko ci gis. ci seet gi ci ngay gis li nga xam ne moom ngay euh, euh, jox nit ku mu doon koy mu doon mu doon saafara. waaw si seet gi mën naa ko si gis avant it si seet gi. Hmm. samay maam mën nañ ma ko woon avant. waaw mën nañ ma ko woon avant laata moom muy egsi. bu ñëwee nga wax ko lépp. bu ñëwee boo man. Hmm. incha allahu rabbi si kàttanu yàlla ma wax ko lépp. bu soobee yàlla suñu borom lépp lu ko jàpp at lépp lu ko faj at lépp lu téye ay mbiram at lépp lu ko àndil ngàllankoor. Hmm. buñ ci taxawee incha allahu rabbi lu mu si bëgg dana ko am duma wax nag lu neex doomu aadama lépp nag yàlla suñu boroom la dañuy ñaan si yàlla rek mu ñuy may te di sant yàlla suñu boroom nag rawaan yi àndandoo yi yàlla suñu boroom moo leen sàkk teg ko fi réalité yi dafa am loolu am la fii si gox senegal bi lépp gis nañ beneen lay nga def lu jëm ci ay suuf yu bëri couleur lool gis nañ fi jaune verte gis nañ fi rouge gis fi gris bu nekk ak la muy faj wala lépp dafa am lu bu ci nekk ak lu muy jëriñ. waaw bu nekk ak la muy faj ak la muy jëriñ bu si nekk rek ànd naag moroomam ba sa des. Mm-hmm. bu si nekk ànd naag moroomam ba sa des. Mm-hmm. waaye du lépp nag la ñu mën a faram fàccal ba di ko wax. Mm-hmm. lépp la ñu mën a faram fàccal ba di ko wax na am na yenn sëriñ yoo xamante ne tur bee nekk si ñoom rek dañuy dégg garab sàngam ak sàngam rek ne lu muy faj laajte rek wala comme ku mel ni man rek sama mbaax. dugal ma si rek man ne garab gi de lii at lii lay faj garab gi lii at lii lay faj garab gi nangam ak nangam lay faj boo ko jëlee boole ko wax nangam ak boo ko defee lii dinga ko gis ne la garab gi nii boo ko jëlee def lii at lii lii at lii da nga ko siy gis damay bañ a joxe tegtal tojal la yax bi ndax am na si ñu bari wéeruwaay lañu at courte sëriñ yi loolu noonu moo tax moo tax mënu mën a leeralal lépp lu bari waaye garab gu si nekk at la muy faj ni benn bu nekk ni muy waxee noonu la garab gu si nekk ak la muy faj pettaaw la muy bari bari benn bu nekk am na lu muy wax muy muy yi ñu tiim nii waaw muy pettaaw yi ñu tiim nii mm-hmm. bu dul pettaaw sax mun naa jokkox yow bu dul pettaaw bu dara sax xool la jokkox yow ne la diw nàngamax ak nangam ak mm-hmm. Ibrahima Diouf Ibrahima Diouf nag xam naa ni bu ñu waxee ci suñu fekk gi dinaa ñëw nag ci Ndakaaru parce que Ndakaaru bëri nay coow te ku la xool xam ni ci nga bokk waaye nag danañu leer ci kanam léegi-léegi suñu secret gi euh, dafay bëri ay lu war a faj maanaam euh, ci lu jëm ci jinne rab ah ku tàggal ko xelam koo xam ne dem na ba ñi njabootam amatuñu yaakaar ci moom parce que rab la jinne wëlbati na xelam loolu na xanaa mën nga ci dara waaw yenn yi de moom mën naa si dara moom incha bu soobee yàlla suñu borom korab jàpp moom. ba mm-hmm. mu leer ma ne ni lii nii raboo ko jàpp wala jinne moo ëlbati xelam wala muy seytaane. Mm-hmm. bu boobaa incha allah rabi boo jëflanteek man dina baax te buñ si taxawee di nga am ndam waaye am na si ñoo xamante ne dañ leen di yàq. Mm-hmm. dafa si am ñoo xamante ne da leen di jaral sax ñu dem yàq doomu aadama. ëlbati xelam wala ñu liggéey ko liggéey ko ba nga xamante ni day mujjee sànku yàqu. bu ko defee ñu naan raba ko jàpp wala dara wala dara fekk na dañ koo dañ koo yàq def ko ko. donc bi am na feebar yoo xamante ni bu demee ba nga xamante ni deewa si des. du mais. tàmbali bi ba nga xamante ne dem na ba tollu fenn fii boo ñëwee buñ si taxawee incha allahu rabi dina dañ de liggéey bi dana la wàcc si jàmm ak salaam li la téye woon lépp dina la bàyyi. si sunguf ak reen de njariñam bari na loolu garabu nasaraan yi ngay li nit ñi di jëfandikoo lépp garab yi la wala du garab hmm? yàlla suñu boroom mu ko meññ mu jugee si suuf mu loolu loo xamante ni dëgg la lu am mais ñenn ñi dañ koo xeeb dañ koo tuutil si sunguf ak reen yi dañ koo xeeb dañ koo tuutil waaye bari na njariñ bari lu muy faj nag loolu te bari na ngàllankoor bu nekk bu muy dindi. bari na it lu mu mën a yàq it. ubbeeku nit ñi dañ koo soxla mu ngi dara. waaw mbirum tijjeeku moom dama si yëngu mën naa si dara kay dama si yëngu bu baax. Hmm. te ku ma si jëflanteel moom incha allah bu soobee yàlla suñu borom di nga gisal sa bopp lépp. Hmm. est-ce que liggéey def nii yëpp baax kii bu muy defal kenn après bu ci am lenn loo xam ne da ko ciy topp lu ko xamante kon kii parfois nit day liggéey jinne rab non même pas même pas bokkut ki jë ki ñuy fayeeku at koo xamante ni malaat la dafa ñëw si yow nga liggéeyal ko te yàlla tax jëfal ko mu fa jox la ñaqam nga xam ni kii boo jëflanteek moom dina tane si jàmm ak salaam bokkukat bokkut ak koo xamante ni moo dem uti loolu bari na si ñoo xamante ni waa ñoo sàkk loolu am na si ñoo xamante ni alal moo leen ko jaral ba lande ba après sax ngàllankoor di leen si fekk ndax ñoom ñoo dem sacrifié wu am lu ñu tayle am lu ñu jëflanteeg ñoom mais boo ko ak koo xamante ni rab daf koo jàpp mu tawat ba am na mu mel nga faj ko ba mu wér kooku noonu bu demee ba wér doxi ay soxlaam ëllëg si biir rab du ko topp ko dogaale ndax ni ko jàppee woon nga faj ko ba mu wér boo ko tax koo xamante ni lii cosaanam la si dereetam la nekk ñoom dañoo am ay urgal mm-hmm. war def loo xamante ni seen wareef la dañ ko war di def ay at wala ay yees ay ñetti at ñeenti at danga nga war di tuuru ñooñu boo demee ba faale woo leen bu yàggee ñoom mën nañ la andil ngàllankoor ay jafe-jafe. d'accord ah ko euh, euh, sànq nag nga ne doon la doon bu ñuy wax ñaan ñaan la jëtul daaw ñu tudd beneen keneen ajandate euh, gis nañ keneen ku génn moom mooy sutura daaw Idrissa Ndiaye gis nañ ne moom moom fu mu taxaw ne mooy sutura daaw yow mi ñu taxaw nag Idrissa Ndiaye Ibrahima Diouf sutura daaw lañ lan nga am lan nga moom moom la daaw. voilà loolu dono la rek te li ñu naan dono wóor te lu waaye doon lu nekk rek mu dëggal. ndëg daarut mbay ankay surtout ndëg daarut laa kay. loolu mm-hmm. noonu du ko werante te duma ko sikki sàkk ndax ndëg daarut mbay sama maam la sama maam Adja Te Diagne yàq yaayu baaba Diagne yàlla na yàlla suñu borom yërëm. Mm-hmm. yàlla suuf sedd si kawam. moo daan tuurul ndëg daarut mbay. moom la nag daa doon bay jox bopp digg penc ndakaaru fikk penc yeeg ñaar yëpp ba ñëpp teg si seen bët. waaw. mooy sa maam. mooy sama maam. Mhm. mu Maguette Diop Maguette Diop bu Tooba Diagne mu gànn Diop. d'accord mais ñi waaw loolu noonu mën naa ne mooy li ma la wax rek. Mhm. dañoo bëgg tur ak bëgg ku leen dégg rek. Mhm. boo nee Pape Issa Ndiaye Pape Issa Ndiaye maa ko yar. Pape sa Ndiaye. Mm. maa ko yar bu baax démb tey soog a ñëw seede yàlla lu amul seede baax. Mm. jumaa jee koy nodd mm. maa ko yar démb tey soog a ñëw. loolu noonu mun naa ne sax wax la mais du débat waaye ndëg daarun bay taxawoon na ne ëllëg si biir ndakaaru njaay képp ku fi ñëw dal fi di nga bokk si samay njaboot. dinga bokk si ñi nga xamante ni man dinaa la sàmm. Mm-hmm. mais ñu koy wax lépp waxin la nii rek amul seen benn maam. bu daan tuurul ndëg daarut mbay amul seen benn maam bu daan jëflanteel ndëg daarut mbay bu dee Pabli sa Njaay mi nga wax man maa ko yar man Ibrahima Diouf sëtu Adja Ndate Diagne mu yàq yaayu Baba Diagne maa ko yar aco léegi daaw nag ko xam-xamee ba Ndakaar te yi mu mu tàng na euh, ay nit ñaa ngi génn àdduna xale yu ndaw yi lakk yaa ngi bëri ci marché bi nit ñaa ngi doy na waar daal lan ngeen ci loo gis gisul li ma leen dégg sax est-ce que ëpp na waar tool la. Mhm. maanaam ci waaw question boobu sax danga ko dama la koy tontuwaat ndax walaaj nga wax nga ma ko sànq. lii xew lépp mu ne la lii xew lépp waxoon naa ko avant. Mhm. si mhm. waxoon naa ko ma jógewaat si loolu tuuru man leen at mu bees bii di ñëw at balaa élection yi. jafe-jafe dina am dee yi dina bari ngàllankoor yi dina bari accident yi ba si xale yi ñuy faat ak lépp dina bari. mais nag ëpp na waar toll ndax jafe-jafe yee ngi gën di ñëw. ngàllankoor yee ngi ñëwaat mi ngi nii suñu kanam ñuy gis. ba si yenn accident yi ñuy wax pareegul ndax yenn sacrifice yi ñuy def at yenn jëf yi ñuy def mi ngi waral lu bari teewul tamit jinn yi ñi ngi fàkk di gàllankoor ñenn ñi tamit dina am ay moor yu am kay du yàgg te bu jamono ngi ñëw nag mbeex mi dana génn ganax gi géej gi jamono ngi ñëw mi ngi egsi incha allahu rabbi ma fekkeek bañ a fekkee mi ngi ñëw du yàgg dina am nag kilifa guy génn liggéey kuy wàcc àddina di dem dina am ku am tur baa muy artiste tamit kuy noppalu dina am tamit choc bu metti buy am du yàgg nañ jug ci réew mi te bu ñu jugul ci réew mi dinañ dégg coow lu metti incha allahu rabbi waaw xam nga sarax yi foo diglee sarax nañ génnee nangam wax nangam si réew mi ñenn ñi dañ koy critiquer sëriñ taxaw na fi am na ku fi taxaw kay déglu naa ko seetaan ko mu ne Macky Sall nag génnee temps nag si réew mi génnee temps de sarax ankay ñu tuur deretu mala yi moo gën deretu doomu aadama yi di rot di tuuru seen i bakken di rot ñuy faatu ay wax bu dofee noppi kay déglu dofuñu wala li ma la wax du dëgg ñu tuur deretu mala yi faat leen génnee ay sarax moo gën deretu doomu aadama yi di tuuru seeni bakken di rot te jafe-jafe yi ma leen wax bàyyi leen ci seen xel ma fekkee ko ma bañ koo fekkee léegi nii suñu kanam ñu leen koy gis élection présidentielle yi Macky toog na daan nga jëflanteeg ñu mel waaw daan naa jëflanteeg ni ñu mel ci ñenn ñi mais du ma wax seen tur am na si ñu ma jëflanteel ñoo xamante ni sax sori wuñ ma. Mm-hmm. jëflante naax ñoom def naa si it ay ñaan te it def naa it sama yéene ak ñaan jàmm it si réew mi. Mm-hmm. waaw. d'accord euh, njiitum bi di ñëw koy moom incha allah rabi moom ma fekkee ko bañ koo fekkee incha keneen ay toog de. jàppoo kan lay doon. <laughs> wala wala gars yi deewuñ la kan. keneen lay doon. muy allah bu soobee yàlla suñu borom dina am keneen kuy ñëw mais mënuma la ne diw la du ma la ne diw la. am na keneen kuy ñëw. Ah, daanaka moom la ñëpp dégg sax xam nañ ko sax bu baax mais jarul wax te du ma wax. bu soobee yàlla suñu borom bu ñu fi yàgg boobee. waaye nguur gii nii. Hmm. at mu bees bii nii di ngeen si dégg jàppante te wala ngeen dégg si coow. mu ne la même taxawal nañ ko sax de am na waaye chaise yu bari dina tas mbooloo mi ñu si bari sax dinañ xaajalikoo seen biir di ngeen si dégg jafe-jafe waaye dina am ku si wàcc liggéey ci nguur gi mhm. wala ku ku jege si nguur gi hmm. mhm. waaw xam nga li ñuy naan bu fukki nit di gas fukki nit du suul moo fi am waaw moo fi am waaye buñ ci taxawee de jàpp dinañ sori de te dinañ dem de mhm. lakk yi bari nañ lakk yi bari nañ trop si marché yi mhm. Mhm. lakk yi bari nañ trop si marché yi loolu moom dëgg la waaye lépp loo gis dañ ko war a ñàkk taxaw si ndax réew mi toll na foo xamante ni jafe-jafe yaat li daan am li xew sax lu bari jamono si ginnaaw xewut woon mm-hmm. metti gi metti jamono si ginnaaw amut woon mm-hmm. mais nañ jug suñ suñu réew te jug suñu bopp te def si ay ñaan waaye nit ñi def yenn sacrifice yi nañ ko bàyyi mm-hmm. maanaam nit nañ ko sacrifice waaw am na sacrifice yoo xamante ne ñu ngi koy def te fi muy mujj dina ëpp loxo ba si ñuy sàcc it xale yi di jëf naka su noonu yow boo demee bay sàcc doomu jàmbur tayleel sa bopp wala nga dagg say cër ni ngay daggee cëru jàmbur te def ko sa bopp dagg sa cër jëf mais defanteex loo xamante ni jinne nga ko jëflanteel ëllëg muy andi mbay mbay goo xamante ni kenn du xam foo koy waxee dina xaw a doy waar tamit dina xaw a doy waar mais jinne taal na yàggut waaye am na si loo xamante ni dafa rax jinne yàggut marché ba. non néew ma ba sax de. Mm, fan mm. <laughs> jërëjëf sëñ Bamba. jinne taal na. Mm. taal taal bi newoon si penku. waaw xam nga lépp loo gis rek dafa am lu ko waral. Mm-hmm. lépp loo gis dafa am lu ko waral. dëkk bi dafa am na ñoo xamante ne dañuy fëkk jëf. te ay miix lañu li ñuy wone nekkul si ñoom li ñuy nekkul si ñoom taal taal bi tàkk tàq bii xew si marché bi nii am na dina amaat beneen jafe-jafe bu mag bu ñuy déggaat te te te bu ñu moytuwul dina am ay moor a saafara am na lu koy saafara kay mooy def sarax yi ñu war a génnee si dëkk bi def ñaar yi ñuy war a def si dëkk bi def li fi maam yi daan def Mm-hmm. démb mm-hmm. ba tey di ko fi fekk muy réalité yoo xamante ni yàlla suñu boroom moo ko fi wàccee mm-hmm. te muy lu am lu dëggu loo xamante ni nit daf si tawat ba tàkkali ko sagoom mu ñëw ñu defaral ko si mbiru sunguf ak reen aada cosaan ñu àndaat xelam correct léegi avec saa ñu ne liggéey bi dafa xaw doy waar lii ñu si wax sarax yi maanaam mooy nag yi ñu war a génne mala yi sarax yi ñu war a taxaw génne ko si réew mi buñ ko defee de bu soobee yàlla suñu borom dina baax de. ñi bëgg a jëflante ak yow ñi bëgg a jëflanteex man nekk bitim réew bu ñu jokkoo man moom incha allahu rabi ñoom lu ñu bëgg dinañ incha allah bu buñ si taxawee dina sotti. te buñ la woowee à distance nga wax leen na leen jàpp lu nekk ci ñoom ak la koy dindi. waaw buñ ma woowee en distance ma jël seeni i tur ak seen sant ay turu waajuram santam boobaa bu ma ko xoolee wala bu ma ko fanaanoowee lépp lu ñu ma mënte woon it ko ne nangam ak laa gis lii at lii laa gis lii at lii mooy sarax si am naa yaakaar incha allah bu neexee yàlla suñu borom bu ñu defee lii at dina la wàcc te incha allahu rabbi bu soobee yàlla suñu borom bu ñu si taxawee ni ma ko ko waxee incha allah noonu la koy wàccee duma wax nag lu neex doomu aadama hmm. lépp lu may wax nag si yàlla suñu borom laa koy teg ndax yàlla suñu borom mooy dogal hmm.